بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله مك دار جنون لني بباخ تدلن زيار لنيار نيب جامو باخ باخ تاين نغي امون ييني ak mbegte ak kontante fas yéene dalal suñu cheikh muy cheikh Aboubacar Thioub di ñaan yàlla mu dëgëral ko te watt ko te sàmm ko te aar ko bëgg seq ak moom ay waxtaan wu jëm ci leeral ci wàllu xam-xam rawatina li jëm ci wàllu téere bii di saxiixul Buxaari bëgg ci seq ak moom ay laaj ak i tontu suñu première laaj nag ginnaaw bu ñu dalalee tatagalee suñu cheikh cheikh Aboubacar di ko wax marhaban euh, première laaj bi dafa jëmoon ci kan mooy al imaamul Buxaari kañ la juddu kañ la faatu ak ci ban tabaqa ndax ci taabiuna yi la bokk wala ci atbaawu taabiina yi la bokk beneen bi al imaamul Buxaari ci ñan la jàngee ñan ñooy ay sëriñam ak tamit ñan ñoo jàngee ci moom ñoo xam ne nii mën nañu leen a limal boobu mooy première laaj bi abdullah min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi man wala daara ji nga nuyu kenn ku nekk si turam ak jëmmam di nuyu sëriñ bi nga xam ne moo ñu daral fii suñ soppee Alaaji Omar Cubu di kontaan bu baax ci dalal gi eh, di lee jot gi mayewut ko te it eh, xat na loolu waaye yàlla def na mu sàkk ko ci ñun te mënuñ ko koo gàntal ñu nangul ko ko ñu nangul ko loolu moom nag xamal nañu ne waxtaan la woo xam ne li ko tax a jug mooy leeral rek li aju ci téere Buxaari bi ak li aju ci jëmmi Buxaari boobu eh, loolu wala boog lenn ci li aju ci yooyu ndax yooyu yëpp xajul ci benn jotaay te ñun sax mënuñoo leeral lépp loolu moo moo tax a jóg waxtaan wi <clears throat> ñu nangul ko loolu nag ndax loolu moom lu am solo la te eh, xamal ñëpp ne waxtaan wi nag tontu kenn taxut koo jóg wax ak kenn taxut koo jug dañoo toll ci jamono joo xam ne nii masalaam xam-xam sax boo si waxee ñu ne diw ngay wax ak xataa bu di waxee ci masala moomu kenn amul droit leeral ci masala moomu te yonent bi sallallahu alayhi wa xeetam lañ ko taggee mooy digle lu baax tere lu bon terul woon sama benn waaye bu baax ndeysaan mas na maa wax ma balaa nga wax ci masalaam diw comme que xam nga ne man ak diw am nañu relation mënoon nga maa oh, xoo ak man ba pare te pourtant diw wax na la mu wax te pare pour dellu ci ginnaaw man xam naa te la wax gis naa ne du noonu mu ne balaa ma ci woon wax naa ko woo wax ak moom ba pare xam nga loolu mooy dem na ba lislaam léegi mel ni nit ñaa ko moom <laughs> ba boo ci wax da war a tàggu nit ñi waaye ñuy leeral rek ne lii ñuy wax moom. du raddu kenn masala la ci masala yi buñ ñu dalutoon sax suñ xel dajutoon ñu waxtaan ci laaj bu njëkk bi mooy kan mooy al imam al buxaari mu ngi tudd muhammad doomu ismail al buxaari mu ngi juddoon ci dëkk boobu ñuy wax buxaara ci fukki fan ak ñett ci weeru xori atam téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi tombeek ñeenti fan ci weeru ut Eh, ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ci gàddaay ci juddu Iisaa mu ngi juddu bisu àjjuma sosu na moom imaamul Buxaari di jirim maanaam dafa teel a ñàkk waajuram bu góor yaayam a ko doon toppatoo baayam nag bàyyi woon na fi alal yoo xam ne ci la doon yaayam di sukkandiku ci yar ko ak ci toppatoo ko baayam Ismaayil doonoon ku baax ba muy faatu daan na wax ne bàyyiwuma sama alal dërëm bu xaraam wala bu lënt loolu euh, ku am alal ñeme ko wax bëriwut <laughs> bàyyiwuma sama alal xawma sama alal dërëm bu xaraam wala bu lënt imam Bukhari ba muy xale dafa gumba woon euh, yaayam gént gis Ibrahima xalilu rahman alayhi salaatu wasalaam mu ne ko yow ndaw si yàlla delloo na sa doom ji bëtam ngir ñaan yu bëri yi nga koy ñaanal wala jooy yu bëri yi yi ngay jooy imam Buxaari ba mu xëyee rek ndeke bët yi ñëwaat na mu ngi gis normal kon loolu du gis la mu ngi commencé jàng xam-xam ci dëkkam boobu di Buxaara gannaaw bu mu génnee ci daara wër na ci barab yooyu nga xam ne ni sorewul dëkkam boobu di jàng xam-xam dugg na ne saabuur ñaari yoon yoon bu mu fa njëkk dugg mooy atam ñaar téeméer ak juróom-ñeent ci gàddaay gi yoon bu mu jiga mooy atam eh, ñaar ak juróom fukk صحنا فجرومي جرومي أت دي حديث دمنا حجاز دقنا مك دقنا مدينة تكنا تيري بمن غا وحنا أمود بن ريو بو خمناني ولا بوك بن دك بو خمنا دك بقم قم لا شي جمو نوم لموي دقنا فا ناخ دقنا عراق دقنا واسط دقنا كوفة دقنا بصرة دقنا مصر دقنا دمشق دقنا بغداد موم إمام البخاري daawut jàng rek si sëriñ ci rek lu mu jël rek ne noonu la déedéet waaye daf laan xóorlu li muy jël ci sëriñ ci di xóotal gis-gisam ak dégg-déggam eh, du lëm dégg rek ci sëriñ rek nettali ko da doon topp ba muy xóor eh, imaam Buxaari daan na wax ne bàyyi naa fukk junne xadis yoo xam ne ci benn góor laa ko jëlee ndax gis ne jar na xoolaat maanaam góor googu jar na xoolaat moo tax ma bàyyi fukki junne xadis yoo xam ni eh, ci moom lañ ko jëlee nee na bàyyi naa lu toll noonu wala lu ko ëpp ci keneen koo xam ne gis naa ne it jar na xoolaat kon moom du ko ko jox xadis rek mu jël waaye daf na daf daan xam ci ñan lay jëlee xadis ak it eh, lan la war a nettali ko amoon xel la moom imaamu Buxaari yi eh, daan na wax ne yàlla yenkawal na moom mokkal xadis te fekk boobu maa ngi ca daara ja jamonoom téere yi gënoon a siiw mokkaloon na ko te boobu mu ngi am fukki at ak juróom benn daan nañu wax sax ne moom imam Bukhari ba muy ndaw mokkal na juróom-ñaar fukki junne xadis yoo xam ne mokkal na sanad ba ak yax ba mokkal na yaxu xadis ba ak ñeen jëlee xadis ba yëpp Muhammad bun Abi Hatim al Waraq daan wax ne dégg naa Xashid bun Ismail ak keneen ñoom ñaar ñuy wax ne Bukhari da daan ànd ak ñun di ñëw ci sëriñu basra yi sëriñ ya nekk basra fekk boobu xale la ngir jàng waaye ñun dañuy bind moom du bind dara benn bis ñu wax ak moom ne yow yaa ngi rek di ñëw ci sëriñ ci te doo bind dara euh, bañ wax ak moom nag gannaaw fukki fan ak juróom benn mu door ñoo tontu nee na wax nañu ak moom lu toll fukki fan ak juróom benn mu door leen tontu ne sonal ngeen ma ci laaj bi maanaam laaj ngeen ma laaj gu bari léegi wan leen ma li ngeen bind yéen su ko defee ñoom it ñu génne liñ bind fekk bañ ko génne ëpp na fukki junne xadis ak juróom ëpp na fukki junne xadis ak juróom Buxaari tari leen lépp te moom mosul bind mu tari leen lépp ba ñoom sax lañ bindoon dañ ko doon corriger di ko defar ci loo ci tari moom nga xam ne Buxaari mu ngi ko doon tari ndax rafet gi mu rafet ci leen daal di wax ne ndax da ngeen yaakaar ne damay baagante ànd ak yéen rek ci caaxaan di sànq samay waxtu du ma def loolu ko defee nag mu ne ñu xam ne ndekk xale bi kenn mënu koo jiitu <clears throat> kenn mënu koo jiitu njiit rek la mën a la mën a doon tin bu naree neex bu baxee xañ kon moom teel naa teel naa xëñ moom imaam al Buxaari mos naa ñëw it Baxdaad bu ko defee ñooñ xadis ci dëkk boobu ñuy wax Baxdaad daal di dégg ñëw ak Buxaari ñu daal di dajaloo eh, jël téeméeri xadis dégg nga nit ku nekk rek ñu jox ko fukki xadiis jaxase sanad yi xadis bu nekk rek ñu jaxase sanad yi maanaam xadis bi ñu jëlee si sàmba ñu ne si demb lañ ko jëlee bu ñu jëlee si demb ñu ne sàmba lañ ko jële jaxase ko góor gu nekk ñu jox la fukki xadis <coughs> ba mu téeméeri xadis ñu dajale nit ñëpp nag imaamul Buxaari teew kenn ku nekk di wax xadis. bi nga xam ne daf koo jaxase waaye saa yu kenn ñëwee rek wax xadisam imam Buxaari ne ko xaw ko ba xadis yëpp jeex ko defee mbooloo mi nga xam ni jànguñ xamuñ dara ñu ngi naan ah kii kay xamul dara xadis buñ ko laaj mu ne xaw ma xadis buñ ko laaj mu ne xaw ma gannaaw ga imam Buxaari daal di jël xadis benn par benn xadis bu nekk mu boole kook sënat bi mu war a ànd ak ko defee nit ñi daal di nangu ne kii ku yàlla may la ci wàllu mukkal ak xereñee xam-xam lu mel noonu it xew na ci imaamul buxaari ci dëkk boobu ñu wax Samarqand ñeenti téeméeri borom xam-xam ci wàllu xadis dañoo dajaloo juróom-ñaari fan ngir gagloo buxaari ak jaxase ko ñu fexe ba jël xadis yi xadis yi nga xam ni isnaadu waa Sham la sanad bi si waa Sham lañ ko jëlee ñu jaxase koog isnaadu waa iraq isnaadul waa yaman ñu jaxase koog isnaadul xaramayni muy makka ak madina maanaam jaxase sanad yi sanad yi dëkk yi ñëw dégg nga jàngoo ko ci kanam buxaari waaye buxaari jaxasewut ci benn sanad wala benn mat maanaam corrigé na lépp tegaat lépp ci yoon xam nga ne loolu ku yaatu mokkal ci wàllu xadis bëri ci xam-xam rek moo ko man Buxaari daan na wax ne musuma toog di nettali xadis lu mooy ba nga xamee ne dem naa ba xam li wér ak li wérut waaye lu mooy ba nga xam ne dem naa ba xool mboolem téere yi wax ci wàll wi dugg naa Basra juróomi yoon wala lu toll noonu bàyyi ma fa benn xadiis bu wér lu mooy bind naa ko lii doon imaam Buxaari radiyallahu anhu doon wax daan wax ne mokkal naa téeméeri junne xadis yu wér. ak ñaar téeméeri junne xadis yu wérut sëriñ yi ko jàngal ëpp nañ junne sëriñ moom imaam al buxaari sëriñ yi ko jàngal ëpp nañ junne sëriñ mais man nga ko ci juróomi étape étape bi ci gën a kawe mooy sëriñam yi nga xam ne fekkee nañ jamono taabiin fekkee nañ jamono taabiin yi jëlee nañ ci taabiin yi dégg nga ni ki makki bun ibrahim ak abu asim an mooy daxaak bun maxlat ak ak alfadlu bun dukaynu di amru bun xamaat ak ñurul ñoom ñi ñëpp ay sëriñam lañ yoo xam ni jëree nañ ci taabiin yi ñoo gën a kawee ci sëriñam su boobaa da xam ne Buxaari mu ngi bokk ci ñi nga xam ni atbaaw atbaay taabiina ñu topp ñu topp taabiina yi ci la bokku ci tabaqa ci eh, alqarnu saalis ci masak ñetteel gi <clears throat> état ñaareel bi ci ñim jëree mooy ñi nga xam ni Eh, déggewuñ ci benn kenn ci taabiine yi waaye nag fekkee nañ jamono jooju <laughs> ni ki Adama bun abi Iyas ak Saïd bun abi Mariam ak ñu mel noonu état bu ñetteel bi mooy ñi nga xam ne dajewuñu taabiine yi ni ki Suleymaan bun Harb ak Ali bun Madini ak Yaxya bun Maïn ak Ahmad ibnu Hanbal ak Isaaq bun Rahawayhi ñooñu Buxaari jëlee na ci ñoom waaye ñooñu dajewuñu taabiine yi état bu ñeenteel bi mooy moromam yi ci xam-xam ni Muhammad bun Yaxya zuhli bi nga xam ne ni am na xew-xew bu xew ci digganteem ak Buxaari ak Abu Xaatim ar ak Abu Zura ñi ay moromam lañu ar-Razi waaye ñi ñëpp am na ay jafe-jafe yu xewoon seen digganteeg imam al-Buxaari mais jëlee na ci ñoom ay moromam lañu woon ci xam-xam état bu juróomeel ba mooy ñi nga xam ne nii mën nañoo wax ne ay moromi taalibeem lañ imam Buxaari jëlee na ci ñooñu. نك عبد الله بن حماد اك عبد الله بن ابي عاص آه، اك يدمي نونو جيرينيش نيوم لا وارم جيرينيش نيوم بريوت اما اي طالب مم امام بخاري برنا لول دا واخنا ني جوتايام رك لو اوب نيار فكي جوني ندونغا دا نان فا تيو خمغا كوكو نيم جانغال برنا الخطيب البغدادي نينا دغنا آه، دنگا آه، صحيح البخاري دنگا nettali nañ ci saxiwul Buxaari ne ne ne lim bu bëri dégg nañ ko maanaam toll na ci juróom-ñeent fukki e, nit yoo xam ne nii jëlee nañ saxiwul Buxaari ci Buxaari loolu nettali nañ ko ne lim bu bëri boo xam ne toll na ci juróom-ñeent fukki junney nit yoo xam ne dégg nañ saxiwul Buxaari ci Buxaari loolu dafay wane ne <coughs> dégg nga e, kon saxiwul Buxaari ñu bari jëlee nañ ko ci moom te ñooñu ñëpp ay taalibeem ci lañ bokk lu ëpp juróom-ñeent fukki junne nit wala lu tol noonu jëlee nañ sayul Buxaari ci Buxaari bokk na ci taalibeem yi gën a mag nag muslim bun xajjaaj ak ibnu xuzayma ak abu abdurahman an nasaay ak abu isa at tirmisi eh, ñooñu bokk nañ ci taalibeem yi gën a siw yi ñu gën a xam wax nañ ne imam Buxaari eh, madhab shafi la jàppoon ñu ne madhab xanbali la ñeeni mu mujtahid loon maanaam ku doon góorgóorlu di génne ay masala ci eh, yitteem ak ci xam-xamam waaye royutoon kenn te loolu moo gën a lëng ci mbiram ku sàmmoo woon loon moom imam Buxaari moo tax néew na mu jam nit jam goo xam ne dafa fees ñaaree lam daan wax ci nit ñi mooy matruk kuñ bàyyi la aw saaqit wala mu ne ku rot la wala mu ne sakatu anhu noppi nañ ci moom aw fiihi nazar wala mu ne kooku jar na xoolaat maanaam daawul jam nit comme ni koy gars yi di jamee ci xadis néew na nga dégg imaam Buxaari jam-jam boo xam ne dafa fes ndiki mu ne diw fenkat laa ak demee noonu daaw ko wax kàddu yu yem la daan wax ndax daf daan wax ne du ma may kenn ëllëg mooy xuloog man ci àllaaxira naan maa ko waxoon nangam moo tax lu simple la daan wax loo xam ni du ci am nag yàlla moom nag ku tuuti la woon jëmmam ji rëyutoon waaye njoolutoon ba ëppit gàttutoon ba ëpp jaamukatu yàlla la woon bu mën a jaamu yàlla mm, daan na julli benn bis ko eh, ci biir julli gi yàlla dogal benn rab mu ñëw matt ko fukki matt ak juróom benn wala juróom ñaar eh, mu bañ a dagg julli googu bañ ko laajee mu ne dama jàng saar woo xam ne bëgg koo dagg eh, fekk du tuddati jiit ji matt na ko fukki matt ak juróom ñaar te daggul julli gi ku bëri woon lu mu daan xatmul quraan la ku bëri woon lu mu doon naafila guddi la ba mu naan bind téere bii di Buxaari tarjuma bu nekk rek bunt bi muy tarjuma rek dana julli ñaar rakk afaa mu koy def Suleymaan bun Jaahid nettali na nekkoon naa ci Muhammad bun Salaam mu ne ma soo teeloo na ñëw de da gis xale boo xam ne mokkal na juróom-ñaar fukki junne xadis waxoon nañ léegi ne mokkal na juróom-ñaar fukki junne xadis bu defee Euh, Muhammad bun Salaam boobu daal di jug dem dabi Buxaari ne ko yow yaa wax ne mokkal nga juróom-ñaar fukki junne xadis mu ne ko waaw waaye mokkal naa sax ëpp loolu te du ma la tontu ci benn xadiis boo xam ne jëlee naa ko si saxaaba wala si taabiin yi lu mooy xam naa ne xam naa kañ la juddu wala boog ñu ëpp ci ñoom xam naa kañ lañ judd xam naa kañ lañ faatu xam naa fan nañ dëkkoon moom kon kii ku xamoon xadiis la waaye ku ko mokkaloon la waaye ku ku ci xereñoon la dégg nga maanaam daaw solo xadis ci xadis saxaaba yi ak taabiin yi lu mooy xam na kooku mu solo xadis bi ci moom kañ la juddu kañ la faatu fan mooy dëkkam daan na waxi ne daaw du ma solo benn xadis ci xadis saxaaba yi ak taabiin yi lu mooy am naa si cosaan loo xam ne mokkal naa ko ci alquran ak sunna xadis bu mu nettali rek am na si aslu cosaan bu wér bu jëlee ci alquran ak ci sunna kon moom xataa bu jëlee xadis wax ko rek am na cosaan bo xamne ni bu wér la même hadith bo bo ci gisee problème it aslu hadith bi lu wér la manam lolu mu wax man nga koo jëfee ndax san li lu wér la amna ci san lu wér ci alquran ak sunna te xam nga ne hadith leg leg dañ ko dëgëree ay sax alquran bi nga xamne ne dëppoo mom dana tax ñu mën jëfé mom hadith eh abu zur'ami nga xamne ni bok na serigne bukhari wax nañ ne mës nañ ko gis mu tok ci karam bukhari melni xale bu tok ci karam waajuram di ko laaj ragg-ragg ci wàllu xadiis di ko laaj ci xam-xamu ragg-raggi xadis e, yi moom ci boppam wax na ne musuma demal benn sëriñ lu mooy lam jariñu ci man moo ëpp li ma jariñu ci moom Zuhli mi nga xam na ni mooy Muhammad bun Yaxya boobu biñ nara e, e, bu waxoon léegi ne am na jafe-jafe ak Buxaari moom it daan na laaj Buxaari ci ay ragg-ragg ci wàllu xadiis ak tur yi nga xam ne dàkkantal la ak turi yi góor yi dégg nga loolu Buxaari daan na ko ci jariñ waaye lu mu laaj Buxaari rek daf koy tontu mel ni fett gu génn ci moom mel ni kuy jàng ixlaas mu yomb lool ci moom kon gis nga ne nii meloon ci wàllu xam-xamu xadis gis ngeen nu mënoon a mokkale gis ngeen ni mu ay sëriñ junne sëriñ gis ngeen jaar-jaar yim jaar ak xam-xamam bu yaatu bi mu am ba ponkal yi jamonoom sax daan rang ci buntu këram ngir jariñu ci moom ànd ak loolu lépp nag tëbul rekk xëy rek bind téereem bii di saxiwul Buxaari dafa seggi xam-xamam xool lam ca d'accord wala boog lenn ci lam ca d'accord tànn ko lu toll fukki at ak juróom benn Buxaari mu ngi tànn téereem bii di ko segg fukki at ak juróom benn ci la taalif saxiixul Buxaari te moom mooy téere bi njëkk ci téere boo xam ne ni hadis yu wér rek lañ ci dajale léegi-léegi da ngay dégg kuy jëm Buxaari ni ana ay sëriñam ñoo ko fi jiitoon defaroon nañ téere lu tax ñu ne téere Buxaari bi moom mooy wér waaye sëriñam yooyu téere ñu loon def ñoom jubluñ ci woon ne hadis yu wér rek lañ ciy dugal Buxaari yi moom mooy ki njëkk taalif téere boo xam ne hadis bu wér rek la ciy dugal waaw ku mel nii yaatoo nii ci xam-xam jaar ci dëkk yu bëree nii dajeeg sëriñ yu bëree nii yàlla may ko xel mu réyee nii mu mën a mokkalee nii taalif téere boo xam ne nii dégg nga mu ngi ko taalif ci fukki at ak juróom benn ba pare ne xadis bu wér rek laa ciy def ndax dana tumuraanke nit na mboolem lu nekk ci téere boobu lu wér la ndax loolu sori na xel déedéet soriwut a xel benn waaye rek bu góor doon jàng fii mason xam ko lool xereñ ci lool ba mason yëpp nangu ne kii mason bu xereñ la bu ñëwee ne la tabax naa kër kër gii ni ma ko tabaxee amul benn erreur maçon yi ci boppam seedeel ko ko bu ko maçon yi seedeelutoon si yow nga war koo nangu rawatina yi seedeel ko ko ndax boo nangoo loolu mooy tekki ne yow dangaa teg kooku place yàlla déedéet lu simple la parce que lii xam-xam la bu mu xam Buxaari yi ni mel ci wàllu xadis su taalifee téere ne xadis bu wér rek laa ciy dugal taalif téere boobu indil ñu ko boroom xam-xami jamono yépp seede ne téere bi téere bu wér la dëgg-dëgg taxaw ne téere boobu lépp lu ci nekk wér na dulu tumurank dulu tumurank noo ko mën a nangulee ab maçon nga bañal ko ku ni ne Buxaari noo mën a nangulee maçon bu la defaral dara ne lii kër gii ma la defaral baax na am benn erreur nga gëm ko parce que xam-xamam la xereñ na ci ku mel ni Buxaari mii ak lii ma la wax ci yaatoom ci xam-xam xadis defar téere bi fukki at ak juróom benn ñu ne lépp lu ci nekk wér nag muy tumuraankeeg ñenn ñi man loolu jaaxal na man loolu xaw ma nu mu demee man loolu xaw ma nu mu demee Buxaari borom xam-xame xadis yi ñu bari tagg nañ ko bokk na ci imaam muslim daan na ko wax ne ko bàyyi ma ma foon sa ñaari tànk yow muy ustaazu ustaaz yi imaam muslim men yaay sangu ñuy nettali xadis yaay doktooru xadis ci ragg-ragg yi li feebar ci xadis yaa koy defar. ibnu xuzeyma daan na wax ne gisuma ci ron asamaan ku gën a xam xadisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a mokkal xadisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buxaari mooy imaamu buxaari eh, mais am na nag nattu ci dundam ndax dugg na nay saabuur di fa jàngale nit ñi jublu ko bëgg ko dem ba jotaayu sëriñ ci di weet ndax jotaayam nam feesee xam-xam ak nam leere dem ba seen mag ma di Muhammad bun Yaxya az-Zuhli nga xam ne ni mën ngaa wax ne ñu ëppoon xam-xam ci dégg nga gox boobu ci la bokk jotaayam di rànq ndax jotaayu Buxaari bu ko defee lii dal ñenn ñi dal ko mu daal di wax moom Zuhli ne Buxaari dafay wax ne alquran dañ koo bind na ngeen ko nattu ci loolu ci jotaayam ngeen laaj ko benn waaye ñëw fekk Buxaari mu ngi ci jotaayu jotaayam di jàngale mu laaj ko masala moom ndax alquran luñ bind la jotaay Buxaari tontut ko ndax xam na li ko tax a jóg ba mu ko laajee ba mu ñetti yoon Buxaari ne ko alquran wax yàlla la waaye binduñ ko amma jëfi jaami moom dañ ko bind maanaam yow jàng gi ñu koy jàng sa jëf la loolu lañ luñ bind la mais alquran moom bind nañ ko waaye sa wax jii moom lu sosu la ba pare ne ko nag di examen nit ñi ngir taal fitna loolu bidaa la bokkul ci diine ah waa ji laaj-laaj bi commencé coow ci jotaay ba ba Buxaari daal di jug dellu këram eh, bu ko defee imam Zuhli moom it mu ngi ci loolam rek ba bis mu ne képp kuy toog ak Buxaari bu mu toog sama jotaay ndax buxaari pas-pasam dafa yàqu dafay wax ne alquran dañ koo bind ba mu waxee loolu muslim bun xajjaaj ak ahmad bun salama nga xam ne ñoo gënoon a mag ci ñu doon teewee jotaayam daal di jub bàyyi jotaayam dem ci jotaayu buxaari bu ko defee si la zuhli wax ne góor gi daal dootuma nekkateeg moom ci dëkk bi bu mukk ñi nga xam ne xamuñ ak ñu dese ñi ndax par parparloo yàgg na fi ci àddina commencé di lor Buxaari ci seen i wax ak seen i jëf wax ju ñaaw ju nekk ñu di ko ko wax jëf ju ñaaw ju nekk ñu di ko ko jëf eh, ba imam Buxaari dal di xat ca dëkk boobu daal di génn eh, foofu ci ne Saabuur dem ci Marwa ci côté Xuraasaan waaye Zuhri bàyyiwut ko ba léegi mu ngi fexe rek lu nekk ci gox boobu yëpp daal di jëppi Buxaari yi nga xam ne ni dëkk bu mu dem rek nit ñi dañ koy wan gannaaw njort yi ñaaw ci moom sikki yi bëri ci côté ba Abu Xaatim Arrazi ak Abu Zura Arrazi di wax ak ni ñu mel ci wàllu xadis ne al Buxaari matrukun laa yuktuba xadisuhu ñoom ñu ne Buxaari laa yaktuba xadisoo ñu ne Buxaari kuñ kuñ wàcce xadisam la ba ñoom ñaar daawuñ bind xadisam ñu ne Buxaari matrukul xadis lañ wax Buxaari kuñ wàcceeg xadisam la parce que pas-pasam dafa yàqu <clears throat> moo tax jam al mu jar jarxi wa taadil jar bàyyi xel parce que léeg-léeg nit dana jëm nit ci erreur euh, comme ni mu amee ci Buxaari mi ñu jam ay borom xam-xam yu mag jam ko mais xam nga ne jam googu teguwul fenn. ci lay dal diggante ñaari kilifa rek moo moo fa lañ ko jamante waaye xam ngeen ne tegut fen moo tax nit boo koy jam danga war a firi lu tax nga jam ko pour ñu nangu jam gi il faut nga firi ko tafsir ko leeral le lii lañ ko jamee wala war am na ñoo xam dañ leen a jam Buxaari yi génne leen wala muslim génne leen parce que nanguwuñ jam gi jam ba lañ ko nangu nga firi ko nga leeral ko boo ko leerul mën naa am ci leneen la tabaxu ma Buxaari nag moom daawul jëm kenn ñaareel lu mooy jëm goo xam ni jam gu oyof lay doon ah, kon nii la nit ñi wanee gannaaw Buxaari mu xat fu mu dem xat ba mujj dellu dëkkam ba mu juddoo woon muy Buxaara buur bu fa nekk di Xaalid bun Ahmad az-Zuhli daal sàkku ci moom jotaay boo xam ne dafay ñëw di jàngal doomam yi Buxaari bañ ne man duma toroxal xam-xam di ko yóbbu ci bunti nit ñi ba defee nag mu ne ko kon léegi nang leen defal jotaay boo xam ne ñoom kese ñoo fay jànge ñoom kese ñooy jàng Buxaari ne ko déedéet duma toroxal xam-xam it di ko beralal ñenn ñi bu buñ bëggee daal na ñëw ci jàkk ji maanaam na ñëw ci jotaayam bu buur bi daal di mer moom it siwoon ne rek bu ta Buxaari pas-pasam baaxut mooy de nee nañ day wax ne alquran dañ ko bind fekk yow li ngay jàng loolu la wax ne luñ bind la ba ci la génn dëkkam boobu ci mujj dundam dem Samarqand ci ab dëkk bu ñuy wax xar xartank dëkk boobu mu feebar na bay ñaan ñaan gu daw yaram ne yow yàlla suuf si lu muy yaatu yaatu xat na ci man yàlla nga ma jël yóbbu ci yow bu ko defee mu faatu yàggul rekk ci la faatu ci fanweeru fan ci weeru koor maanaam ba koor gi jeex bañ na suba la koret ci la faatu gannaaw julli gaye bisu samedi ci fan bu njëkk ci weeru xori atam ñaar téeméer ak eh, juróom fukk ak juróom benn ci la gaañu tombeek eh, <clears throat> fanweeri fan ak benn ci weeru août ñi denc ko ci bisu feet gi bisu korite gi ci dañ ko denc gannaaw tusubaar dundam ëpp na juróom benn fukki at lu teg rek la dund moom al imaam al buxaari kon daal ci gàttal eh, lii rek lañ waxaale ci kan mooy al imaam albuxaari yi ànd ak ne mbiram gën naa yaatu lii ndax borom xam-xam yi taarif nañ ci ay téere wax nañ ci lu ne ñu ngi xaar beneen laaj incha allah. suñu ñaareelu laaj nag day jëm njëkk ñuy dugg ci li ñu tax a jóg dëgg muy saxiwul buxaari yi mooy fànn bi di mustalahul xadis mooy li ñuy tuddee almul jarxi wa taadil fànn boobu noonu kañ lañ ko sos ci ban jamono. ci ban jamono lañ sos fànn boobu di almul jarxi wa taadil ak xawaacid yooyu noonu kan mooy ki sos fànn boobu ak kan moo tëral xawaacid yooyu noonu comme ni ñu xamee ne xam-xam yu bari benn nit mën na koo sos lu mel ni almul arud euh, lu mel ni almul euh, naxu nga xam ne nii danañ xam ne nit kii mooy ki ko njëkk a sos ndax fànn bii di mustalahul xadis al imaamul buxaari mooy ki nga xam ne nii moo yeewu rek sos fànn boobu noonu moom kese wala am nañ ñu ko jiitu ñu sos fànn boobu tëral qawaid yi ne lii ci la ñuy xamee bu wér ak bu wérul wala mbooloo yi borom xam-xam ñoo daje dëppoo ci loolu ak lan moo tax ñi sos qawaid yooyu noonu kan moo ko sos ak lan moo tax ñu sos ko ak ci ban jamono lañ sos qawaid yooyu noonu nga xam ne nii ci la ñuy xamee xadis bu wér ak bu wérul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, ñu ñëwaat benn yoon ci laaj yi ñaareel bi mooy kan mooy kan moo njëkk a teg قمقم بيدي قمقم وجرح والتعديل من أجل شوالو غورني من خمنني ورني وجل سن حديث أجني ورا باي سن حديث من جم دوما وحنا كي كون جاكتك موير إن شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم كي مملكو صحابي رأي قناو كي برم قمقم دي كوري بس ينجمون جي ndax xam-xam bii di mustalahul xadis doxut ci lu may du lépp loo dégg ñu ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko moo ko wax rek nga jàpp ne yonentoo ko wax loolu la lay bëgg xam-xam bi di jàngal du luñ ne yonentoo ko wax rek yonentoo ko wax sallallahu alayhi wa sallam waaye it ak xamal la nit ñi nga xam ne yelloo wuñ jël seeni wax ndax bañ nga askanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxut wala loo xam ne askanoowut ci moom moo tax damay wax ne ki njëkk a teg xam-xam boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na wax na ne kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma samia doy na nit rek nar lu mu dégg na yonentoo wax lu mu dégg rek waxtaanee ko nee na loolu doy na nar doy na rek nar loo dégg rek ne dégg la dem nettali ko kon loolu lu mu lay jàngal mooy soo déggee dara danga war a xool ki nga ko déggee ak ndax lu jaadu la wala du lu ba balaa nga koy nettali mais doo du loo dégg rek nga ne wér na kon yonent bi sallallahu mooy njëkk jàngal ne du lépp lu ngeen dégg rek. لولو لويرلا لكن <clears throat> واحنا سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنوكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم yeren tibi sallallahu alayhi wasallam ne ci mujj ak jamono dana am ay nit ñu ñew di leen waxtaan loo xam yéen déggu leen ko seen baay dégg déggu ko naan yonentu wax na nangam sallallahu alayhi te yonent bi waxut saxaaba yi déggewuñ ko ci moom kenn déggewuñ ko ci yonent bi yonent ne moytu leen ñooñu kon yonent bi moo ñu njëkkal moytuloo ñi nga xam ne dañuy waxal yonent bi lu waxut wala ñu koy askane loo xam ne askanowut ci moom kon jàngal nañu ci xadis bu njëkk bi ne du lépp luñ dégg rek ne wér na loolu dana wane ne war nañoo am yoon woo xam ni war nañ cee jaar ba xàmmee yi wér ak yu wérut parce que du lu nit wax rek wér na moo wan ñu ci xadis bu ñaareel bi ne ay nit danañ wax loo xam ne ni amut danañ ma askane loo xam ne ni man seet naa ci waaye moytu leen nit ñooñu kon su boobaa war nañoo xam ne yoon wi ñu war a jaar pour xam li yonentu wax lu yonentu waxut mooy tànn nit ñi nga xam ne ni xelloo nañ ñi jëlee ci ñoom waxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax seen xam-xam matee na ko seen mokkal matee na ko seen maanute matee na ko dégg nga te gisuñ lenn loo xam ni war naa tax ñu dàq seen wax jooju buñ ne yonentoo wax hadis bi jàngal nañu ne foofu lañu war a jaar ba ba na xam waxu yonent waaye jàngal nañu ne war nañoo jam ñi nga xam ne dañuy sosal yonent yàlla Muhammad sallallahu di wax loo xam ne nii boo ko toppee ba ci biir nekkul lu askanoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent wax na jàngal nañu ne war nañ leen moytu ndax fa iyaakum wa iyaahum moytu leen moytu leen ñooñu loolu moo indi an mu jarax wa taadil ñuy jam ñenn ñi pour nit ñi xam leen nit ñi moytu leen nit ñi daw leen nit ñi bàyyi leen xel maanaam képp koo xam nii rek jëlee ci moom wax ji wóorut kooku dañ ko war a dàq te dañoo war a leeral ñooñu ñooy ñen bañ man leen a xàmmee bañ a a jël seen wax kon lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane kon ci moom la jógee ci moom la jógee jàngal nañu it ci yeneen ci dundam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne war nañoo xamal nit ñi ñi nga xam ne nii sori leen moo gën jege leen maanaam jël seen sori leen ci wàllu xam-xam moo gën jël seen xam-xam yonent bi jàngal nañu ne loolu war nañ koo def dégg nga ngir ñu mën leen moytu ndax ci jamonoom daan léegi-léegi mu wax mu wax aw xeet léegi xawaarij ŋàññi euh, leen wax ci ñoom loo xam ni dana tax <clears throat> nit ñi mën leen a moytu buñ leen gisee kon yonent mooy njëkk jàngal leeralal nit ñi ñi nga xam ne yàqa leen tax a jug ndax nit ñi mën leen a daw waxaa na wax ne xawaarij bu ñuy jàng alxuraan du romb seen put loolu xam nga ne du lu leen i neex ndax du tagg ci ñoom jam la bu mu leen jam ak yeneen i melo yi mu wax ci ñoom ba ci seeni i melokaan dañuy tëkkal seen tuba yi eh, sëqal seen ci sikkiñ yi di wax waxi ki gën ci mbindeef yi te gëmuñ ci dara bu ñuy jàng alxuraan du romb seen put yi bu ñuy julli ngeen xeb seen julli bu ñuy xoor ngeen xeb seen xoor xamal ñu meroom ba ba nga xam ne ni eh, saa yoo gisee ñu mel noonu rek daf lay xoor ni ñii la yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa wax pour nga mën leen a daw kon yonentu jàngal ñu ne ñi nga xam ne ay nit lañ ñoo xam ne ni dañuy yàq war nañ leen a leeralal nit ñi ba nit ñi mën leen daw borom xam-xame xadis ci loolu la ñuy def kon ñoom loolu kenn ci ñoom def sosut ko waaye dañ ko jëlee ci yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn mos naa toog ak ndey aïchatu radiallahu anha benn waaye di dugg yonentu ne bi sa bi sabnil achira doomi giir-giree bon maanaam ŋàññ waa ba waa duggee yonent bi ba waa ji demee ba génn Aïcha wax ak moom li nga wax ci moom ak ba mu duggee ni nga ko nooyalee mu ne ko ay Aïcha ki gën a xees garaat ci nit ñi mooy koo xam ne ni man it naasu ittiqaa fuxshihi mooy koo xam ne ni nit ñi bàyyi nañ ko ngir moytu lu ñaawam dara gënul ñaaw nag réeral nit ñi ci xam-xam loolu mooy rey gi gën a bon ndax mooy rey ruuxu kon yonent bi jàngal nañu nit war nañ koo leeral lan nit ñi bu fekkee lu ñaawa nekk ci moom ndax nit ñi moytu ko ba mën a ba bañ a jël lu ñaawam loolu kon yonentu tey ci misaal ma nga wax ne dafa diw moom matruk la ku ñu bàyyi la ndax tuddee ne ko man tarakahu naas ku nit ñi bàyyi kon ko kooku ci bi jam na ko jam na ko wax ci moom loo xam ni dana tax nit ñi moytu ko ndax du nit ku baax boo jaxasoog moom mu yàqal la loolu daf lay wan ne la jam aw nit ngir moytuloo ko nit ñi wala leeralal nañ ñi ne du lépp lu nit wax rek dëgg la dafa am yoon wu ñuy jaar pour xam li nga xam ni moom moo nekk dëgg ak lu dul dëgg loolu moom ci yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa lañ ko jëlee jëlee wuñ ko si ma sàmba jëlee wuñ ko ci ma demba ci ñàngam ñàngaleem yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi rek lañ ko lañ lañ lañ jëlee loolu ndax wax naa la xadis bi nga xam ne nii moom laa la njëkk a jàngal yonent bi sallallahu alayhi leeral na ci xadis boobu ne doy na rek nit nar mooy lu mu dégg nettali ko bu ko defee mu jàngal ñu ci xadis bi nga xam ne moo ci topp nan lañuy war a def bay jël xadis mu ne nañ moytu ñi nga xam ne ni la wax du dëgg kon moom xamal nañu ne ñuy def mooy ñu tànn ñi nga xam ne ni lañuy wax lépp dëgg la ay sukkandikuwaay wéer lañ ci am mm, te xelloo nañ ko mën nañoo mokkal ñu jël seeni xadis ñi nga xam ne la ñuy wax teguñ ko fenn ñu mooy leen loolu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, jàngal na ko xataa boo demee ci téere yu wér yi da nga fekk eh, saxaaba yi roy loolu ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh, taabiin yi roy loolu ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ci jamono ji nga xam ne nii mooy suñ jamono ji ba léegi borom xam-xam yaa ngi roy loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muslim indi na ay xadis yu wér ci téré bokk na ci hadith yi hadith bo xamna ñing ko muy histoire bi xewon ci Bushayr bun Kaab dara netti hadith bu netti hadith rek Ibn Abbas nako ko hadith nangam mu waxat ko mu nako ko hadith nangam mu waxat ko dem bu Bushayr jaaxle nako ma adri arafta xadisi kullahu wa ankarta hada am ankarta hadithi kullahu wa arafta hada man de damaa xamut sama xaddis yi mu wax yépp dangaa xam ne lu wér la waaye bii nga may wax ne ma baamuwaat ko moom moom nga xamut wala boog sama xaddis yi may wax yépp benn ci wérut bii nga may wax baamuwaatal rek moom moo baax affaire bi jaaxal ko ndax lu mu wax rek su ko defee Ibn Abbas dana ko waxaatal hadis boobu Ibn Abbas ne ko ñun dañ daan jël xadis yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nga xamee ne kenn fenalut ko kenn naralut ko kenn waxulul yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxutoon jamono boobu dañ daan jël xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye ba nit ñi demee ba war seeni gëlëm yu mokk yeeg yu mokk di di jëlee xadis fu ne di jëlee wax fu ne di tasaare wax fu ne yu wér ak yu wérul ñu jël mu ne boobu lañ bàyyi jël xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ku ne manam gënaaw ba nga xamee ne sos am na nar am ku nekk di jëlee fu ne di wax boobu lañ bàyyi jël xadis lu moy ci koo xam ne ni xam nañ moom mooy kan kon ibn abbas moom ci boppam roy na yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loolu xam nga lii kon saxaaba yi dañ doon xam ci kan lañ war a jëlee xadis saxaaba yi dañ doon xam kan lañ waroon jëlee xadis naka noonu it al مغيرة دي مغيرة بن مقسم الدبي <coughs> نتلنا لم يكن يصدق عن علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود نرى نتلي حديث جلي علي رضي الله عنه جسم si woon ñu si doon عبد الله بن مسعود كون كوكي دفلون bun masud kon kooki ci lay jële xadis mooy gaa yi abdullah ibn masud ñu dul gaa yi abdullah ibn nag mu woon leen gannaaw naka noonu ibnu abi mulayka nee bind naa ci ibnu abbas di ko laaj eh, pour mu bindal ma ab téere boo xam ne daf daf koy gàttal tënk bañ a guddal bu ëpp mu ne ko eh, yow de xale bu baax nga boo xam ne ni e, bu sell nga danaa la tàll tànnal ay mbir yu am solo waaye danaa la gàttalal ba pare mu xool atte yi nga xam ne Alioune mu ngi ko doon atte ñu bind ko yenn yi mu gis bind yenn yi bu ko rombee def naan wallahi ma qada bi hada Alioune illa an yakuna dalla lii de bu dee Alioune moo ko atte woon dafa réer maanaam li mu bëgg wax mooy yii moom al imam Alioune di laanu attewut ko kon kooku daan na xool yi jël. ci waxu imam ali ak yum du jël ci lolu liñ koy defee rek moy xam ña nettali wax yi ak façon wax bi nda waxu imam ali la war a doon wala du waxu imam ali kon lolu mom la borom xam-xam yi doon ne ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon ne ko ci sahaba yi tabi'in yi top ci ba siñ jamono ji loolu dafay jàngal ne la jëlé wuñ ko lu rek manam niñ tëralee xam mustalah hadith ak di jam ñen ñi ak di setal ñenn ñi di wax na ñoom ñooy wax kati dëgg yi ñoom ñooy ñu mën a mokkal loolu ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee ibnu sirin ci taabiin yi la bokkoon daan na wax ne inna haadal ilma diinun fanzuru amman taaxuduuna diinakum xam-xam bii di eh, xam-xamab lislaam diine la kon na ngeen xool ci kan ngeen war a jëlee seen diine <laughs> dégg nga kooku ibnu sirin daan na ko wax dégg nga ibnu sirin ni daan na wax ne saxaaba yi daawuñ laaj sanad kon sanad yàgg na fi maanaam boo waxee xadis daawuñ laaj ci kan nga ko jëlee pour ñu xam war nañ koo nangu wala waruñ koo nangu daawuñ laaj loolu waaye mu ne ba fitna xewee nit ñi di sos di créer loo xam ne ni bokkut ci lu ne ñu di ko indi ba fitna yooyu xewee ci lañ commencé naan sammu lanaa rijaalakum tuddal leen seen yu góor yi ñan ngeen jëlee xadis tudd leen ko ñu xool ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci sunna nekk ci njub seen i xadis jar ñu jël ko ñu jël seen xadis xool nitu bidaa yi nga xam dañuy yàq duñ jël seen seen xadis kon euh, boo xoolee loolu da ngay gis ne kon ci jamono saxaaba yi lañ doon xool sënat ak topp góor ñi ak xamit góor ñi nga xam ne dañuy wax dëgg ak ñi nga xam ne la ñuy waxi lu xóor luñ mokkal la ñu jël ku dul loolu duñ ko jël comme ni ko ibnu sirin waxee ni ne saxaaba yi dañ laan laaj sanat ba fitna xewee naka noonu it ibnu abi zinat nettal na mooy abdullah ibn zakwan mu ne jot naa ci Medina téeméer yoo xam ne ñoom ñëpp ñu xóor lañ waaye kenn du jël ci ñoom xadis ndax bokkuñ ci ñooñ xadis yaa ngi dégg wax ci téeméeri nit yoo xam ne ñoom ñëpp ñu xóor lañ waaye kenn du jël si ñoom xadis ndax bokkuñ si ñooñ xadis hmm? loolu mu jàngal mooy du boo baaxee rek maandu rek soo ñu nettalee xadis ñu jël ko mais il faut nga mën a mokkal nga nekk daabit parce que téeméer yoo xam ne ñoom ñëpp ñu hóoru lañ seen diine waaye daawuñ jël si ñoom xadis parce que bokkuñ si ñooñ ñooñ bokkuñ si ñooñ xadis loolu daf lay war ne du ku ku ne ku baax rek lañ laan xool jël xadisam waaye déedéet waaye koo xam ne mën naa mokkal koo xam ne xàmmee na koo xam ne ni xereñ xereñ daabit la ku maandu la tegsi waaye nag ku mën a mokkal la ku xereñ la ci wàllu xam-xam boobu ti xam-xamu xadis kooku lañ daan jël xadisam loolu loolu daf lay jàngal ne taabiin yi ñoom it roy nañ saxaaba yi ci loolu gannaaw loolu nag taabiin yi continuer di roy saxaaba yi ci wàllu xadis xam ci ñan ñan nga war a jëlee xadis ak ñan nga war a moytu ak ñan nga war a moytu loo nit ñu bëri ci taabi ne roy nañ saxaaba ci loolu bokk nañ Saïd ibn Musayyab ak Qasim bun Muhammad bun Abi Bakr ak Salim bun Abdullah bun ak Abu Salama bun Abdurahman ak ñeneen ñu du ñëw gannaaw ga mbooloo topp leen roy leen ñoom it ci topp yoonu xadis ak seggi góor yi bokk na ci Zuhri moo ci gën a fës bu gën cee kawe bokk na si yaxya bun said al ansaari ak hisham bun urwa ak saadu bun ibrahima gannaaw ga ñeneen topp leen ci wëttu wàllu xadis ak jam ñu lott ñi bokk na ci ñooñu sufyan bun said al thawri ak malik ibnu anas ak shuba bun xajjaaj ak abdurahman bun amr al awzaa'i e, ñooñu mujj nañ roy ñi nga xam ne ni moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i <clears throat> ak ay saxaabaam ak ña leen jiitu ci taabiin yi ci xam ci ñan lañu war a jëlee xadiis ak ñan ñooy ñi nga xam ni waruñoo jëlee ci ñoom xadiis dégg nga <clears throat> eh, gannaaw loolu it beneen mbooloo ñëw nañ topp ñooñu ci xam eh, ci ci jéem a segg nitu xadis ak ak ak ak góor ñi nga xam ne ni ñoom lañu ko war a jëlee ak euh, ñen ñoo ñi nga xam ne ni dégg nga dañ leen war a jam ak ñu ñu war a nangu ñeneen topp nañ leen ci waxoon naa Maalik ibnu Anas waxoon naa ci euh, Shu'ba bun Hajjaaj Abdurahman bun Amr al-Awzaa'i ak Hammaad bun Salama ñu ñëpp ci tabaqa boob lañ ak Lays bun Sa'd ak Hammaad bun Zayd ak Sufyaan bun Uyayna ñoom mbooloo lañu yoo xam ne ni def nañ ci seen yitt ak seen góorgóorlu gannaaw ko ñeneen topp leen ci bokk na ci abdullah bun mubarak ak yaxya bun said alqattaan ak waki bun jarah abdurahman bun mahdi ak mohamad bun idris shafii min xam euh, waaye nag ñi ci gënoon yittewoo hadis gën cee bàyyi ñu lott ñi ak ñu wocci ba mbir mi sax dafa mujj mel ni bu leen ñeexal nga xam ni dafa mel ni ñu dul ñoom rek hitteewuñu hitteewuñu loolu mooy wàllu hadis ak seggi hadis yi ak euh, topp euh, riwaay ak jam ñi nga xam ne ñoom ñoo jamoo ñi sa gënoon a fees ci jamono boobu mooy yaxya bun saïd alqattaan abdurahman bun mahdi amaa ci tabax ñoom malik bi mooy tabax bi moom ñu tuddoo mooy sofiane bun said al as-sawri ak malik bun anas foofu moom ñafa fa gënoon a siiw gënoon a yittewoo mooy malik ak sawri ak chomba ñoo ci gënoon siw tabax bi mu mujj tudd nag yaxya bun saïd alqattaan abdurahman bun mahdi wala nga yaakaar nag ñoom ñoo fenti xadis bi parce que fekk dañ cee roy rek ñi nga xam ne ñi ñoo leen ci jiitu waaye fentuwuñ fànn boobu gannaaw gi ñeneen topp leen ci xeñtu jeexit yi <coughs> ak euh, gëstu dëkk yeeg gox yi xam ñi ñuy bàyyi ak ñi ñuy bàyyi seeni xadis ak ñi ñuy jam leeral seeni xaal ak li ci aju yëpp euh, gan ñeneen topp na ci mooy Muhammad euh, Ahmad ibn Hanbal ak Yaxya bun Ma'in ak ali bun abdullahi almadini ak aboubacar bun abi sheyba ak ishaq bun ibrahim al anzali ak ubaydullahi bun amr al qawariri ak zohairu bun eh, harb ak xaysama am mbooloo daal moo xam ne ni ñoom it topp nañ ci yoon woowu waaye ñi sa gënoon a fees nag ci tabaqa bi ci étape bi mooy ahmad bun hanbal ak yaxya bun maïn ak ali bun madini rahmatullahi alayhim ajmaina yal na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp gannaaw ko mbooloo topp ci di gëstu wàllu xadis comme ñoom bokk na si Muhammad bun Yaxya Zuhli an-Naysaburi ak Abdullahi bun Abdurahman ad-Darimi ak Abu Zura Ubaydullahi bun Abdul Karim bun Yazid ar-Razi ak Muhammad bun Ismail al-Bukhari moom moom ci tabax bi la dóori ñëw sax boo xoolee kon ñu ko jiitu ci fànn bi bëri nañ ak Muslim bun Hajjaj an-Naysaburi ak Abu Dawud Suleyman bun Ashas mm, ak mbooloo daal moo xam ne ñoom it góorgóorlu nañ ci wàllu xadis seggi ko leeral nañ war a jëm ak ñu war a jëm gannaaw ga yeneen i borom xam-xam topp ci e, seen gannaaw ba suñ jamono tey e, ba ci mel ni xaafis ibnu xajar al asqalaani ñu kookit ci ñu xam ni ñu gën a ñu am solo lañ ci wàllu xam-xam bii di an mu jarxi wa taadil ci la ci la bokk kon da ngay gis ne ilmul xadis mën ngaa wax ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo sos lépp bu dee leeral ne xadis dafa war a xam kuñ ko jëlee du loo dégg rek koo dégg ci moom rek jël kooku yonentoo ko njëkk leeral bu dee moytuloo nit ñi ñi nga xam ne nii seeni xadis wérut yonentoo ko njëkk def dégg nga te boo moytuloo nit ñi ñu wérul rek mooy yaa ngi encourage ni ñi ci ñi nga xam ne seen xadis moo wér ku loolu moom mooy jarxu wa taadil gannaaw ko saxaaba yi topp ci comme ni ñu ko waxee gannaaw ko taabiin yi topp ci gannaaw ko tabaxa par tabaxa ba ci jamono ji saa su nekk rek am na mbooloo muy jug di wattu sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu moom mooy maaquul mooy lu xelu moo tax imaam muslim di wax ne saa su nekk jamono bu nekk amna mbolo mo xamne xam wut yoon sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta duñ jeex ci jamono bu mukk di leg leg nak ñu xawa wañé ko xawa tuti xawa fess leg leg ñu xawa tu tuut bëri ñu ñu ñu wàññeeku waaye neen du ñàkk si jamono bu mukk ndax lan ndax yàlla daf ñu wax ne wa ma fa xuzuhu wa nahakum anhu fantahu yonent bi lu leen andil jël leen lu leen tere bàyyi leen te te loolu pour jamono yépp la kon nag il faut yàlla wutal ñu yoon woo xam ne ni ci la ñuy wëttoo sunna yonent la muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu te loolu du ñàkk ci benn jamono ba mu mën a yegg si ci waa jamono jooju mm-hmm. moo tax saa su nekk rek mm, yàlla di andi eh, ay borom xam-xam yi wëttu sunna tibi bi sallallahu alayhi wa sallam ci façon bi yonent bi junjoon ne joxoñoon ne moom lañ ko rootee te mooy moytuloo nit ñi ñi nga xam ne dañuy askana yonent bi loo xam ne saxut jugee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te encouragé nañu ci ñi nga xam ni lañu wax ci yonent bi rek noonu la ndax seen dëggu ak seen xam-xam euh, mate na ko kon su boobaa laaj boobu loolu mooy tontu bi nga xam ni moom laa ci joxe mooy ne xam-xam bi ci la jaar euh, béyek ci ci mbooloo mi waaye duñ amul kenn rek koo xam ne moom lañ koy jagleel ne moom moo génne xam-xam bi ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa sama juróomeelu laaj day jokk ci sama deuxième laaj bi rek comme ñaareelu laaj bi ci la waroon bokk waaye dañ ko xawoon fàtte kon bii mooy suñ juróomeelu laaj mooy fànn bii di mustalawul xadis mooy lan comme laajoon nañ kan moo ko sos ak kañ lañ ko sos ak xawaayid yi waaye mustalawul xadis ci boppam maanaam boo ñu ko doon leeralal mooy lan nan nga ñuy leeralee lan mooy mustalawul xadis beneen bi dañuy dégg ñuy wax almuhaddis almuhaddis mooy lan ak kan mooy muhaddis ci ban daraja ci ban niveau la nit ki di yegg bañ mën ko tuddee al muhaddis wala yeneen musamayaat yi sax lu mel ne al xaafis comme al xaafis ibnu xajar wala al xaafis al araqi ci ban daraja la nit ki di yegg bañ ne kii di al xaafis la ci fànn bii di fànn naxu ci fànn bii di fànn xadis wala kii di muhaddis la ci fànn bii di di di di fànn di fànn xadis waaw laaj bi nga xam ni mooy laaj bi ci topp mooy lan mooy ilmul mustalax xam-xamu mustalax xadis moom mooy lan gannaaw buñ xamee ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sos ci moom la jugee mm, topp ci étape yi ba yegg si ci suñ jamono ji loolu moo di mustala mustala xam-xam la boo xam ne <coughs> eh, mën nañoo wax ne dafay gëstu di la xamal ñi nga <coughs> nga xam ne ne ñooy nettali xadis bi ñooy ñan ak jëmmi xadis bañ lay nettali lu ñuy nangu la wala lu ñuy dàq loolu lu am solo la dafay nettali ñiy nettali xadis bi ñooy ñan ak jëmmi xadis bi ñuy nettali lu ñu war a nangu la wala lu ñu war a dàq loolu lay xam-xamul mustalax di jàngale dégg nga e, am na nag njëriñ lu bari li ci nekk bokk na ci tegtal yi nga xam ne dafa aju ci wàllu xadis dana la ko seggal ba doo jël tegtal yu lott yi doo jël tegtal yi nga xam ne yuñ fenti la sosal ko yonent bi te ko doo jël tegtal yi nga xam ni amul tegtal bu amut lu hóor ne ci yonent bi la jógee sax na jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax képp kuy layee ci sunna soxal na ñaari mbir lii muy wax ndax sax na jógee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu wala saxul jógee ci yonent bi sallallahu alayhi ñaareel ba mooy lii nga xam ne ni eh, moom la andi bu saxee ne jógee na ci yonent bi yonentoo ko wax ndax atte bi mu ci bëgg a tabax loolu lay tekki wala tekkiwul loolu kon kuy wax ci sunna soxla na ñaari ndax lii lu jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala déet ñaareel ba ndax att bi mën nañ ci dégg lii wala mënuñ ko ci dégg maanaam lii jugee ci yonent bi ndax mën nañ ci dégg att bi waa ji saxal wala mënuñ ko ci mënuñ ko ci dégg kon su yooyu ñaar yooyu da nga ko soxla yow mi yow mi ci wàllu mm, xam-xam bii di eh, xam-xamu xadis dégg eh, kon il faut ñu xam ban yoon la jaar ba mën a xam ndax lii sax na jógee ci yonent bi wala déet ndax yonent moo ñu ne du lu nit wax rek dëgg la loolu moo ñu ko nettali xamal nañu it ne moytu leen ñi nga xam ne dañ leen di loo xam ni saxut kon su booba dañuy xool ñi nga xam ne ni gis nañ ne ñii lu ñu wax rek ñaareelu sax lay doon ci seen xam-xam ak seen maanute ak seen ragal yàlla ak seen mën a mokkal ñu jël seen xadis ñi nga xam ne nii lu ñu wax rek ñaareel loolu taxut fenn seen wax jooju boo ko xoolee du taxaw ndax dañoo bëri lu ñuy fàtte Hmm, wala manduwuñ wala yu demee noonu ñu bàyyi seen xadis hmm, noonu rek lañ a def ba xam ba xam xadis yi yu wér ak yu wérul ilmu mustalah nag moo moo lay xamal ñooñu nettalal xadis bi ñooy ñan ba nga mën koo jàpp wala nga dax ko ak jëmmi xadis bi ndax lu ñu mën a nangu la wala lu ñuy dàq la ndax léeg-léeg kat xadis kele ko nekk koo xam ne amul benn problème waaye xadis bi ci moom ndax dafay xuutee koo xam ni moo ko gën a lëng maanaam nam ko nettalee keneen nettali na ko safaan ba te keneen maanaam keneen nettali na safaan ba te keneen kooku moo ko gën a mën a mokkal moo ko gën a maandu ak yu demee noonu su moom xadisam gaa moom ci boppam maandu na bu wuteewut kenn danañ jël xadisam waaye bu wutee ku ko gën a wóor na dañ koy dàq ñaar buñ ñëwee nettali la te kenn ki moo gën a dëggule wax su boobaa kooku ngay jël waxam jëlee keneen ki bu la waxoon rek nga nangu ko su wutee wut ak kële waaye su wutee kee dañ koy dàq hmm? moo tax ilmu mustalah daf lay xamal. ki nettali xadis bi moom mooy kan waaye xamal lay jëmmi xadis bi lu ñu war a nangu la lu ñu war a nangu ndax nekkul na saa yu raawi bi ki nettali xadis bi nekkee ku xóor rek xadis bi dañ koy nangu ilmu xadis dafa am ñaari xaaj ilmu xadis riwaayatan ak ilmu xadis diraayatan ilmu xadis riwaayatan nag li ko tax a jóg mooy jëmmi eh, li aju si wax lu aju ci yonent bi lii jëmmi waxu yonent bi la wala jëfam wala xaalam mais moom gëstuwul ci ki la nettali wax ci maanaam bu xadis jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy xool ndax lii wax la wala jëf la wala xaal la ndax lii lii lay tekk wala tekkiwul lii aksarul fuqaha ñu gën a bari ci ñooñ fiqi yooyu yooyu lañ gën a yittoo ndax lii wax yonent la wala jëfam la wala xaal la ndax mën nañ cee déggee lii wala mënuñ ko cee déggee loolu mooy almul xadis riwaayatan dégg nga dafay gëstu ci jëmm yonent bi ak la cay jógee ci ay wax ak ay jëf ak ay xaal dégg nga ak liñ def ci kanamam mu nangu ko hmm, yooyu lay jàngale ak melo yu aju ci yonent bi ni ki dafa njool wala dafa gàtt euh, couleur bi ni meloo nag mer na kontaan na yi aju ci xaal yonent bi daal loolu lay gëstu ba nag jéem a yan atte ci tabaxu mooy ilmul xadis riwaayatan amma nag ci ki bi lay gëstu ak ci jëmmi xadis bi ndax lu ñu war a nangu la wala du luñ dàq moom yitteelul ko ndax lii wax la wala jëf la wala atte bi lañ ci tabaxe wala tabaxe wuñ ci atte bi déedéet ki la nettal xadis bi moom mooy kan ak xadis bi ci boppam sax bu fekkee waajeeku nettali lu ñu war a mën a jël la wala am na leneen lu ko mën a gàllankoor ba duñ ko jël loolu mooy amul xadis diraayatan kon su boobaa da nga xam ne loolu moom mooy moom loolu mooy ilmul mustala amma yenn alqaab sant yooyu nga joxe loolu moom wuutee nañ ci waaye daal mën ngaa jàpp ne ci wàllu xadis am na mm, ay degré bi ci gën a suufee mooy arraawi ku ñuy tuddee raawi nag mooy kii toxal xadis bi ki nettali xadis bi kooku moom mooy arraawi ki nettali xadis rek kooku moom moom tuddee raawi ñaareelu daraja bi mooy cheikhu sëriñ mooy koo xam ne bind na ab téere boo xam ne dajale na ay xadis nga defee taalibe di ko jàng di ci gëstu nga xam ne ñuy sàkku xadis yi tuwoon nañ téere boobu kooku cheikhu la ñetteelu étape bi mooy al muhaddis muhaddis mooy moom tudd nga ko mooy koo xam ne xam na xam-xamu xadis ak xaali góor ñi nettali xadis xam téere xadis yi xam masaanid yi loolu tamit yombut xam na xam-xamu xadis li ci aju nan la ñuy def ba nangu xadis bépp déet xam góor ñi nga xam ne ñooy nettali xadis bi xam seeni xaal xam téere xadis yi xam masaanit yi mm, kooku mooy mooy muhaddis yokk nañ ci alxaafis alxaafis mooy ku mokkal wa na sax ñu wax afa ava alxaafis am na ñu wax alxujja mooy ku mokkal ñetti téeméeri junne xadis ne diw xujja la maanaam mokkal na ñetti téeméeri junne xadis dégg nga amma alxaafis nag moo gën a kawe mooy ku mokkal juróom-ñaar téeméeri junne xadis mooy alxaafis dégg nga yokk nañ ci alxaakim alxaakim mooy ki nga xam ne ni moom xam na xadis xam ngoo xam ne ne bu ne la xadis bi yegg siwul ci man wala xaw ko rek da ngay xam ne ñaar xadis bu amul cosaan ndax néew na lu ko rëcc ci xadis kooku mooy alxaakim bi ci gën a kawe nag mooy amirul muminina ci xadis kooku moom mm, santal nañ ko imam Buxaari saaxibu saxiix bi ñuy waxtaane moom mooy amirul muminina fi lxadis moom mooy daraja bi ci gën a kawe yooyu ay ay sant yoo xam ni danañ ko dàkkantere ñi nga xam ne yàlla may na leen ci xam-xam bii di xam loolu mooy di aju eh, laaj boobu eh, suñ ñetteelu laaj nag mooy ban téere mooy téere xadis bi njëkk a bind ci taarixul islam nga xam ne ci lañ dajale xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ban téere la ak kan moo ko bind ak ci ban jamono la ndax boobu fekk na tamit xawaayid yi nga xam ne ni moom lañ tëral muy almul jarxi wa taadil ndax fekk na boobu xawaayid yooyu noonu taxaw bañ mën a xam xadis bu wér ak bu wérul ak njëkk xawaayid yooyu noonu di taxaw nan lañ daan sukkandikoo ci xam xadis bu wér ak bu wérul njëkk xawaayid yi ñu koy teg kañ nan lañ daan xamee xadiis bu jógee ci yonent ak boo xam ne ni dañ koo sosal yonent sallallahu alayhi wasallam waaw laaj bi ci topp mooy kan moo njëkk taarif ci wàllu xadis euh, ak borom xam-xam yi jiitu njëkk qaayida yi di taxu kan nan nañ doon xamee xadis bu wér li may njëkk leeral rek mooy euh, borom xam-xam yi moom mos ñu ñàkk xam xadis bu wér ndax wax naa la loolu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi la dañ doon xool rek góor ñi nettali xadis bi ñooy ñan ñoom ñoom ñoo bokk benn méthode bu ñu ko doon jëfandikoo de parfois mu xaw a wute tuuti waaye wute bi daanaka taxu ko am solo ñoom ñëpp rek dañ doon xool ki nettali xadis bi moom mooy kan su ko defee ñu jël bu dee jaaru nañu jël seen xadis bu dee jaaru ñu daq ko te it mboolem yi nga gis muy xaayida yoo xam ne gannaaw ga la yaatu ba fés jàppal na xeet wi njëkkoon dafa nekkoon tabia markuza fi azhanihim borom xam-xam yooyu loolu dafa nekkoon loo xam ne yàlla moo ko defal muy don si seen biir ba ñoom soxlu ñoon sax pour pour pour pour di ko di ci def ay téere ki taalif ak yu demee noonu eh, bu dem jamono demee nag ba nit ñu lottu xam-xam néew ci la koy borom xam-xam yi di taalif nga ñu naan diw moo njëkk taalif ci fànn nanga mu fekk déedéet loolu yàgg na fi comme ni ñu waxee imaam Shafi moo njëkk taalif ci wàllu usulul fiq waaye imaam Shafi dafa am ay sëriñ yu ko jàngal. sëriñam yooyu xam nga ne réere wuñu woon yooyu loolu markuz dara fi azhanihim ci seen jamono mu ngi woon seen biir e, lii noonu la mel parce que xadis mën nañoo wax ne ki ko njëkk a santaane ñu bind ko mooy yonent bi loolu dama koy delloo si yonent bi ndax ñëw na màkk xutba benn waaye bu ñu wax Abu Shah ko bindal ma ko yonent bi ne uktubu li Abi Shah bindal leen Abu Shah kon loolu mooy mooy cosaanu bind xadis kon si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ koy delloo waaye duñ ko delloo ci keneen gannaaw gi it euh, saxaaba yi daan nañ bind ci wàllu xam-xamu xadis dégg imaam Ali am na benn téere bu mu yoroon boo xam ni bindoon na ci laaj laaju ci wàllu dee ak euh, buñ rey jullit ci xever ak yu demee noonu am na saxifa sadiqa saxifa sadiqa li Abdullah bu naas saxifa sadiqa la ko tuddee woon téere bu dëggu bi maanaam kayit bu euh, téere bu dëggu bi rek noonu la ko tuddee woon bu ibn Omar bu naas gannaaw ko doomam yi di ko doonante loolu dafay wan ne la xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk bind ak ay ak ay saxaabaam bu fekkee nag ki ci njëkk def taalif def ko musannaf téere buñ taalif loolu moom imam suyuti andi na ko ci alfiyam bi ne awalu jaami al xaditi wal athar ibn shihabin amiran lahu omar كي نجيك تعرف كي والو كم كم حديث مي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري مي بكون شي تابعين اي مم زهري بابو مو نجيك تعرف آه، تير بو خامني لنكو لنكو ديف كوم تيرني مي تيو نك صحابي واخنا انا دا حديث واي لو ني بن رك لا آه، سوخلو نيون ني ديفال لن آه، اي تيري ندخ لولو مركوزة في اذهانهم لا yàlla may na leen don boo xam ni soxlu ñoon yooyu lépp lu ñu war a def ci téere yi rek moom mu ngi woon ci ñoom mais ki ci njëkk dajale nag xadis yi nag ngir jëriñ ci nit ñi kooku mooy e, ibnu shihab boobu di muhammad bu muslim bu shihab az-zuhri dégg kon kooku mooy njëkk taari foofu ki ko ko digal mooy omar ibn abdul aziz radiallahu anhu wa ardahu omar ibn abdul aziz ci jamono moko digal mu defar loolu ko ci tabine yi bokk moom zuhri bobu mo njëkk tarif téré ci walu walu dajal hadith def ko comme téré ndax saxaaba yi dañ ko doon bind ci seen xob ak fu ñu am rek dajale fa bind am na yenn yu dajale woon benn ay hadith yu bari waaye du lu ñu organiser comme téere mu tegaas ne wa awalu jaamiin lil abwaabi jamaatun fi l asri ذو اقترابي كابن جريج وحشيم مالك ومعمر وولد ابن وولد المبارك لكن جك دف دفر تيري حديثنا اي بنتو كي كن جك دفر اي بنتو بنتو بر بنتو نانا لولو من نيو تاك ني كان لا نداخ مبولو لا مو خامني نيو بوك جامونو ولا جيغي نان جامونو مبولو مومو كو نيك دفرنا <coughs> منو دوغ ني كي موم سي جيتو comme ibnu Jurayj kenn kenn la ci ñi nga xam ni ñooy defaroon nañ ay xadis Abdul Malik bun Abdul bun Jurayj moom defar na téere boo xam ne da ko defar ay bunt du moom moo ko njëkk def nag waaye mbooloo mii la wax ne ñoo ko njëkk defar ak Hushaym bun Bashir defar na eh, téere moom it ci wàllu ak Malik ibn Anas mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko defar na téere moom téereem bi mooy Muwatta ak Ma'mar bun Rashid dégg nga kooku it defar na téere ak Abdullah ibn Mubarak moom la na moom la na mu ci waladul Mubarak kooku defar na téere boo xam ne dañ ko defar ay bunt kon gannaaw gi ñi ñoo ci tegu mu ne wa awwalul jaami'i bi iqtisaarin ala saxiixi faqat al-Buxaari ومسلم من بعده والأول على الصواب في صحيح أفضل كين جك تالف تير بو خمني نك صحيح رك لتي دوغل لوير رك لودو لوير بوكوتشا كوك مودي بخاري رالي لك أم نيوح ني بخاري أم ناي سيري نيام يكو فجيتو وندان نين دفر تير واي كين جك دفر تير بو خمني دفن دومتش دوغل لوير لوير لوير لاتي دوغل كوك مودي بخاري وحنا نكتو مرانكو دق دق دق <laughs> maçon bu jàngi maçon bu man ko bu ñëwoon ne la kër gu baax rek laay tabax war nga ko nangu rawatina nag mu toog 16 ans yoo xam ni dafa toog moom imaam al Buxaari ngir segg téereem boobu di ci dugal xadis bu wér rek su boobaa loolu na nañoo nangu ne xadis yi fi nekk rek yëpp wér na moom moo njëkk a taalif téere boo xam ni ci lu wér rek lay xem gannaawam muslim waaye nag Buxaari moo gën a wér muslim moo tax ne wal awalu a sawaabi maanaam léegi wax ji gën a wér mooy téere Buxaari boobu moo gën a wér téere muslim waaye ñoom ñaar seen téere yi dañoo chartalante ne xadis bu wér rek lañ fay dugal kon ki njëkk taarif téere boo xam ne xadis bu wér rek lañ fay dugal mooy Buxaari tegu si muslim ki njëkk taalif nag musannaf téere wuñ taarif rek ni muy téere boo xam ni musannaf la kooku moom মই আলিমাম ইবনু শিহাব জুহরি ছিন্দিগুলো অমর ইবনু আব্দুল আজিজ ko moom moo njëkk a taarif ci musannaf ki njëkk a defar nag téere yi def ko par buntu nii rek par buntu buntu moom mbooloo la bokk na ci abdul malik bun abdul aziz bun jurayj malik bun anas hushaym bun bashir ci waasit malik bun anas moom madina la ibnu jurayj moom makka la ak mamar bun rashid ci yeman dégg nga bu ibn Mubarak ca Xurasaan ñi defar nañ ay téere yoo xam ne ni dugal nañ ci waxi saxaaba yi ak fatwa taabiina yi ak yeneen yeneen ak yeneen gannaaw gi it ay borom xam-xam ñëw nañ seen gannaaw ni ki Ubaydullah ibn Musa al Absi al defar nañ musnad ak Asad ibn Musa al Amawi ak Nuaym ibn Muhammad al Xuzaa'i ñoom it ñëw nañ defar ay yeneen yeneen téere دينغا غناو غدال مبولم كو غيس رك مي بون خم خم التاريخ متير ني مسند بن ابي بكر اك مسند عمر اك احمد بن حنبل اك اساق بن راهوي اك ابن ابي شيبه نيم نيب دفر ناي اي مصنفات تير يون تاريخ waye ki njëkk taarif nag téere boo xam ni dafa tënku ci lu wér rek ne lu dul lu wér du